mu bëggoon wax ne rek tey li ñu fi dajale mooy fête bu mag boo xam ne dañ ko defal ndongo yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ si département bu Rufisque si académie bu Tëngéej joxe nañu lu toy ni juróom fukki prix yoo xam ne daanaka ñu ñu ko jox ñii ñu ngi jógee si concours CODER ñeneen ñu jógee si concours Miss mat ñeneen ñu jógee si examen blanc yi ñu doon def mu nekk fête boo xam ne mën nañu wax ne tey amul benn école boo xam ne publique la wala privé

doomu tëngee ci nga xamante ne fi lañu dëkk wala ñu ñak fi dëkk ñu ngi bayyi xel mbiru njàng ak njàngale. ma tan pour que xalé yi mëna a xool ci sama jaar-jaar pour mëna inspiré wu def euh, matière scientifique yi parce que xam nañ ne euh, de moins en moins jigen ñi duñu exceller ci matière scientifique yi dañuy préférer def matière littéraire yi donc dañ ma jël pour mu nekk exemple parce que dama def matière scientifique et que ñoom aussi dañ leen di ñaax pour que ñu gën a góorlu parce que tey fête bi neexoon na torop mais si macha allah jàmbaar lañu yal na leen yàlla jàppale dafa leen cat cat ñu mën a aussi inspirer seen yeneen moroomu jigéen

noonu aussi le sa femme ba tamit nekkee fofu donc man dama ñaax xale jigéen ñi ak xale yëpp de manière générale ñu xam nan lañ koy utiliser xol liñ ciy def liñ ciy wax ak niñ koy jëfandikoo daal nañ ko utiliser pour out xam-xam nañ ko utiliser aussi pour te se distraire parce que jàng tamit dafa am benn moment foog nga distraire tuuti euh, détente mais euh, buñ ci def loo xamante ne ni xam nañ ne lii nii xel nanguwu ko waaw donc. euh, voilà nañ ko utiliser daal comme ni mu waree ku ko utiliser comme ni mu waree moom di nga am njariñ bu bari.